daleen ak jàmm seen seen bii di seen njëriñ TV kii di Serigne Saliou Gueye si liñ gisul turu kii di Mary Teuw Niane ak turu kii di Moustapha Ben Diop ci fichier électoral bi ginnaaw bu waa conseil constitutionnel di doon saytu parrainage u candidat yi foofee kii di Serigne Saliou Gueye ne li ni mel day firndeel que ne waa caisse des dépôts et consignation luñ bëgg a gëmloo Sénégalais yi te mooy que ne kii di président Ousmane Sonko ginnaaw ba kii di Ayib Daffé ñëwee foofee daal di leen di jébbal caution dañ ko xool ci fichier électoral bi waaye gisuñ ko te loolee moom moo sabab ñu bañ a jébbal kii di Ayib Daffé ab attestation ne loolee xaajul bay wër. oui ça remet en cause maintenant le discours de la CDC. Hmm, comment. Ah, mais CDC ñoom ñoo waxoon Ousmane Sonko duñ la jox fiche parce que new newuloo ci fichier bi. mooy DG. waaw non non non d'abord non dama dama jékki foofu. non maa ngi maa ngi CDC. xam nga CDC ñu la waxoon. Ah. ñom ñu ne duñu la jox attestation. Ah. parce que yow newoo ci fichier donc ça signifie que ñom au préalable ci seen discours mooy ñun dañoo vérifier. Hmm. waaye ils ne l'ont pas fait pour Mary Teuw ak Ben Job ils l'ont waaw Ben Job ils l'ont pas fait te pourtant ñooñu ñu dem nañ ñu leen newoo ci fichier bi légui ñun qu'on nous explique ñom ñé kon nan la def bañ jox leen attestation. parce que j'aurais compris bu ñu ko defee Ousmane Sonko ñu né ah Mary Teuw gis ñu ko ci fichier bi bu leen ko jox. waaw ah, Mary Teuw waruñu ko woon jox. su fekké li am mais légui waaw. kon ñoko ko déggandoo ki di Serigne Saliou gayne ne luñ gisul turu ki di Mary wo ñaan ak ki di Mohamed Ben Diop ci fichier électoral bi ginnaw bañ koy saytu biir conseil constitutionnel la li ni mel dal dinay findel que ne waa CDC liñ doon jibbal te moy que ne kii président Ousmane Sonko dañ ko xol ci fichier électoral bi gisuñu ko looloo mo sabab ñu dal di koy bañ a ap euh, attestation ne li ni mel worul ndax loolee bu woron ki di Mary wo ñaan ak ki di Mohamed Ben Diop

caution ñooñee xooluñ ci fichier électoral bi waaye dañoo jotoon ab ordre bu bàyyeekoo ci kaw bu leen di wax que ne kii président Ousmane Sonko bu leen ko jébbal attestation. ne ordre boobee rek ñu jot moom moo sabab kii président Ousmane Sonko jébbaluñ ko ab attestation waaye ñooñee vérifié wuñ benn yoon ci biir fichier électoral bi comme niñ ko bëgg a gëmloo Sénégalais yi.